est une ville ferroviaire cheminots yi ñoo bind taarifu Thiès chemin de fer moo def une grande ville africaine ba tax ethnie bari doon daje fii ci Thiès à travers le chemin de fer ñu bari jógee Mali Niger ndax lan ndax chemin de fer Thiès am nu mu toll woon ci Sénégal au plan économique ndax chemin de fer képp ku xam Thiès rek bu ñu ne express mi ngi doon ñëw xam nga li mu doon indi ci dëkk bi ci koom-koom ci su ñu demee àdduna bi dox ba chemin de fer fay train yi fay ba déggatuñu liirum saxaar gi kon Thiès dafa mel ni dafa nekk ci dëj bi ma nekkee maire de la ville de ñaar ba ñett yoon laa mos a jàkkaarloo ak monsieur le président de la république du Sénégal Macky Sall mosuma koo mosuma koo diis benn soxla mosuma koo ñaan dara yow DG. li wax monsieur président bu fekkee man maa yor kàddu la doon ñaan benn projet bu mënta ñàkk mooy jàppaleen Thiès ba chemin de fer dawaat baraay bi dawaat. loolu moo nekkoon suñu taxawaay ndax Thiès mooy chemin de fer kon tey suñu ñëwee fii ñi ni train bi dafay dawaat. dinañu remercier le président de la République Macky Sall mais aussi dinañu remercier le directeur général encourager leen ñu xam ni Thiès ci boppam bég na bu baax a baax ci projet bi ndax chemin de fer mënta ñàkk ci am réew chemin de fer mooy moderniser ab chemin de mooy préparer industrialisation chemin de fer est un instrument politique et un instrument diplomatique parce que stratégie yi ngay tabax les programmes sociaux et économiques au niveau macro mënta ñàkk chemin de fer Monsieur le directeur général de SENTER, honorables invités en vos rangs et qualités da nga maa jox parole rek monsieur le directeur monsieur le gouverneur mënoon nga ma ko bañ a jox parce que su directeur généraux yi waxee war naa mën a bañ a wax waaye dañoo xalaat cérémonie boo xam ni Thiès benn jigéen waxul kooku kon jigéen ñii amee musóor yi mooy jaaykatu taabal yële taabal yi nga jële waa chemin de fer yi jigéen ñii kenn benn jigéen waxul Thiès kon tey cérémonie bi dina xaw a doy waar maa ngi lay sant di président Macky Sall la koy sant di ko gërëm ndax daf ñoo tegoon benn dëkk ñetti gaar teer bi egsi na ñaareelu gaar bi mu ne woon ñaari gaar tey ñaari gaar bi egsi na sa a été une réalité Malick lay sant ñu ngi lay gërëm tax nga ñun GTS monsieur Omar monsieur Omar Sow tey mën a dawal saxaar si ñu jëlee ko Thiès yóbbu Dakar Thiès la président de la République daf ko digoon ne kenn yokkute la. te ñun tamit xam nañu cenum yokkute la ndax yi ku ci dawalul Jakarta yaa ngi jaay café la ville de Thiès sa doom yóbbu wala nga jël sa euh, jarbaat yóbbu ñu téewaat kër gi chemin na yéen jigéen ñi Thiès yéen yokkute laa koy def aéroport baa nga des chemin de fer egg si biir Thiès suba incha allah Malick Boye dina dem chemin de fer bi saxaar si yóbbuwaat ko ba euh, Kidira donc wane ni activité économique yi daan amee yépp le long de la voie mooy day halte dans le temps fépp dina commencé waat koom-koom bi du waat yaakaar dellu si waat na. Thiès nag dafa doon une ville particulière monsieur le ministre ndax nag saxaar gi su nekkee ci waawam sëy bañ si Mansour ne waaw. mu jaar Ndiassane Cheikhal Moussa may nañ ñu waaw mu wëlbati ku jaar Madina Fall sëriñ Assane Naaru Ngaw Sara Fall sëriñ am ni xëy na waaw su egsee kër Mama Laaji sëriñ mu niiru danaa ne waaw ne jërëjëf son excellence le président de la république jërëjëf Mansour Faye tombé moo war a laa gaay allahumma salli ala sayyidina Muhammad rasulullah. monsieur Malick Ndoye je dirai en plus mon fils. Monsieur le directeur général de la Société des grands trains du Sénégal, Monsieur Omar Sow. Ma sœur, ma sœur, présidente du conseil d'administration des grands trains du Sénégal. Madame Seydou Seydou Mbacke. Nous avons apprécié votre discours lyrique nous montre une fois, encore une fois, votre passion pour la ville Monsieur le directeur général de la sainte Monsieur le ministre Abdoulaye Salou, mon ami et mon frère. Mesdames, Monsieur le directeur général de la CETER, Mesdames et messieurs, les représentants des collectivités territoriales, chers invités à vos titres, rangs et qualités, c'est un honneur de la gare réhabilitée de la ville de Thiès. Ville mythique et carrefour culturel qui a marqué l'histoire et le développement des chemins de fer au Sénégal et en Afrique. Thiès, cette heureuse terre de charité, d'hospitalité de brassage culturel, dont le chemin de fer a été le trait de plusieurs peuples de l'Afrique de l'Ouest. J'ai l'habitude de dire Thiès est la deuxième plus grande ville du Mali. la résistance ville de Feu Ibrahima Sarr, mais également d'autres cheminots qui ont contribué à l'émancipation, mais également à l'indépendance de plusieurs peuples africains. Car avec le train, ce ne sont pas seulement des passagers et des marchandises qui étaient transportés, mais aussi des idéaux, des pensées et des des êtres, bref, des transformations socio-économiques et des localités, dans, dans toutes les localités traversées. Mesdames et messieurs, en faisant ce rappel du rôle des chemins de fer comme vecteur de développement, c'est le lieu de saluer toute l'ambition que le président Macky Sall accorde au renouveau des chemins de fer. Ce renouveau des chemins de fer a été et demeure son combat, notre combat, chers cheminots, bref, notre ambition à tous, et les Thiessois en particulier. En effet, depuis son arrivée en 2012, il n'est le jour où il n'a mesuré l'intérêt vital de ce moyen de transport, combien névralgique pour la vie du pays dans tous ses effets avec les branches d'activité économique et sociale. Sous l'impulsion, l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, notre cher pays récolte ainsi les paris d'un fruit certes audacieux, mais aussi de mettre à la disposition des populations le train express régional, une infrastructure de transport de masse moderne rapide, sécurisée et structurante. Elle signe l'entrée de notre pays dans une nouvelle ère qui replace la problématique de la relance du secteur ferroviaire au cœur des politiques publiques. Mesdames et messieurs, ce jour 27 avril 2024 est un grand jour, car il marque la fin et asseoir ainsi le développement socio-économique durable pour le pays. Mesdames et messieurs, je d'être ministre chargé du développement du chemin de fer. Sous l'autorité de monsieur le ministre des Infrastructures, mon ami et mon frère, monsieur le magistère duquel la mise en service du TER a pu opérée avec le succès et l'enthousiasme que nous constatons, mais également la relance du trafic des voyageurs aujourd'hui. le transport de fret par train et dans les jours à venir. Je voudrais remercier tous les cheminots pour cette très mobilisation, saluer l'engagement constant à mes côtés de mon fils, le directeur général de, des grands trains du le directeur, mon ami et mon collègue, monsieur le ministre, directeur de la, du Centre, monsieur Aboudin de Sal, pour la relance et la modernisation du chemin de fer. Recevez en cette occasion, monsieur le directeur général de CFS, GDS Centre, mes félicitations et mes encouragements pour le travail accompli. En termes de suivi de contrôle de l'exploitation commerciale, et d'une gestion optimale des patrimoines qui vous sont dévolus. C'est le lieu de féliciter le DG de CFS, M. Malik et toutes ses équipes pour les efforts sans relâche qu'ils consentent pour la réhabilitation du chemin de fer. C'est également un agréable devoir pour de féliciter et d'encourager le ministre Abdou Sall